mbég la Sénégal Pourquoi koo xam ne yow sa vibrer pour Sénégal tu dois avoir mal hmm. Ousmane Sonko contrairement à ce qu'il dit n'est pas n'importe qui c'est le bénéfice de ce pays porteur d'un projet mobilisateur de plusieurs millions de personnes yoo xam ne nañ ko waxante fii amul benn homme politique même Ablaye Ward n'a pas réussi ça bu nee andil leen ma affaire yi ñu andi mooni bi bu nee dem leen biñi ñu dem c'est un leader un mobilisateur parce que Sénégal est sans ñu toll nii loolu lañ se dise la vérité mais quelqu'un qui peut mobiliser les sénégalais bénévolement amul kenn kuy toog fi Sénégal du yëngatu ci politique ñu lay cotiser bu doon loolu la tey nit du am problème caution dañ wax nous baax kon nit loo ko bañ bañ bañ nangul ko il focalise l'espoir de plusieurs milliers de sénégalais et même d'africains ñu yeewu suba teel invalidé ko. ci condition ñu ko invalider ni xolal tay le coiffure de tête de ce pays là bo ci génné amadou ba ñett ci dess han ah, sonko la won khalifa euh, khalifa sall karim wad ak idriss sek on les a tous jetés en prison man sumay wax duma wax par rapport nit mais xolé c'est à dire voilà une élection bo xamné sur les cinq meilleurs prétendants nous naa juum wala élection mais en tout cas ñi gën a am yaakaar quatre yi dem nañ prison ça veut dire que nous, nos futurs présidents nous avons am un tant que dugaluñ leen prison te prison. Tellement, dans on vient de vivre le deuxième coup d'état civil au Sénégal. ah bon avec le régime comme que ñu nekk seen régime. ñu ñu def ay coup d'état militaire. Hmm. ñun suñu régime bi dañuy def ay coup d'état civil. Hmm. wax naa la ko sànq. dañuy moo def ñaari coup d'état argumenté ah, mais yow mun ngaa mun ngaa saa yoo ñëwee élection rek. Hmm. ki la gën a jaaxal du bokk. yow doo def dara. mais bii ko la yow yow ñi nga àndal ñoo set. yow ñi nga àndal ñoo nice. mais yow képp ku bëgg sa pouvoir rek salte na. mais bu ñu lijjanti woon loolu Ablaye Wade bu defoon loolu yeggali ko ñu ñaan ko mu bañ tey Ablaye euh, Macky Sall prison la ko waroon fekk parce que gouvernement bu la sosalee muy dëgg mu dul dëgg da dem lan lañ ko fi sosaloo du blanchiment d'argent tey jii bu ñu jaayoon doole comme moom nu muy jaay ni doole au moins dina def prison mm-hmm. te boo méttul sa élection yi di si bokk gis nga àdduna mm-hmm. ah? lu jaro sedd la mais fa paré il faut être gentleman dans la vie mais amna ñu ko xam même conseil constitutionnel le conseil constitutionnel c'est dérobé parce que bu yewo suba tel tay arrêt bi lan lay doon que c'est la CDC qui a invalidé la candidature de Ousmane Sonko mais kon ñom nañ démissionné lay sept sages mais lan moko déssé démissionné est ce que dafa wara def comme ni ñeneen natangom ñi nga lim que ni ñom ñoo fi jaar ñu ñu éliminer leen ci ay courses yo xamne jégué won nañu Ousmane Sonko tay lu wara mëna def wala japp nga élection non il faut être intelligent. Mhm. xam nga ñoom ñu ngi jubilé. waaw mais on a écarté Sonko. mais ils ont créé d'autres Sonko. lan la la finalité c'est quoi c'est de gagner les élections. Mhm. nañ dem bu le 25 février ñu xool ndax nañ gagné. Mhm. wala tax waxaan tekki Touré jarul sax xuloo c'est-à-dire gis nga le peuple sénégalais là. il est très mature. dañoo jàppoon ni Ousmane Sonko moo yore projet bi. mais gars yi bëgg leen jaaree foofu pour piéger leen parce que qu'est-ce qui se Ouais. le la gars yi leen bëggoon génne loo xeex loo leen pour yow teel dàq élection yi deux ans mais non on va sénégalais yi dañoo jël décision. dañuy garaawul amul problème. <laughs> vraiment on voulait Sonko. mais garaawul amul problème.